ñi nga xamante ni yéenay seetaan seen émission biir réew mi dalee nag jàmm si seen émission tey jii ñu war a dalal nag euh, benn kàngam fi dëkk fi nga xamante ni moom mooy yëmbal sud euh, ñu nekk nii euh, nekk fi nga xamante ni moom mooy Touba Thiaroye seen émission biir réew mi ñu war a dalal nga xamante ni moom mooy Pape Malick Ndiaye nekk le coordonnateur du mouvement yëmbal sud va de mal en pire haute dégage donc ñu war a tey yu bëree bëri bëri bokk na ci li nga xamante ni moom mooy carrière politique waaye tamit li ni mooy mouvement hors dégage boobu nga xamante ni jot naa yëngal fi nga xamante ni mooy yëmbal sud bi ñu nekk dinañ wax tamit ci li nga xamante ni moom mooy AIC nga xamante ni yor na ko ak ay mbirum coow yu jëm ci li nga xamante ni mooy subvention yi ñuy jox AIC yi ak tamit li nga xamante ni moom mooy position politique bi xamante ni am na ko ci xamante ni mooy yëmbal sud mu nekk na ay ponk yu bëri bëri yoo xamante ni tey dinañ ko waxtaane ci seen émission biir réew mi tey nag ñu ànd ci nga xamante ni mooy Pape Malick Ndiaye Malick ñu leen nuyu baax a baax Mm-hmm. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sant di nuyu auditeurs ak téléspectateurs biir réew mi yëpp. Mm-hmm. képp fu ñu waay di seetaanee ak sur toutes les plateformes. Mm-hmm. waaw contentement bu baax a baax a baax ci dalal bi ñu dalal tey. waaw mu mel ne Pape Malick Ndiaye jamono ji mun nañu wax ne Pape Malick Ndiaye moo yëngal yëmbal daanaka bu mu nekkee ci politique mun nañu wax ne euh, yàgg na waaye bu mu fësee euh, daanaka yàggul noonu ci ci juste ay quelques euh, semaines rek la ñu nga yëngal euh, biir euh, yëmbal donc ba mën a ñëwaat juste bi ci ci sa carrière euh, politique fa la tàmbalee ak fa toll jamono ji fi nga xamante ni la ñu nekk mu yëmbal sud. dëgg la loolu moom parce que dinaa sawar di ci ndax man avant may def politique sax ci appartenance parti mën naa ne dama nekkoon jeune boo xamante ni dama yàgg nekk ci ay mouvement associatif dama yàgg nekk un jeune boo xam ne je suis dynamique. Mhm. par la suite nag ci la ñu gis alliance pour la république. Mhm. nga xamante ni le président moom moo ko taxawal. Mhm. ñu gis parti bi gis idéologie bi ñu neex ñu ñu gisoon ci suñu bopp gis suñu bopp sax léegi nag ñu adhéré. bañ ci adhéré ba tey nag après mouvement li nga xamante ni tous jeunes yi fi nekk yëpp muy jamonoy IVO jamonoy maire jamonoy COJER. tout ñu def ko ba ci di di political suñu gox. ba mhm. département ba régional ba national. Mhm. ba pare ci loolu tamit am na ci at yu bëree bëri. def nañ mhm. ci suñu alal mais def nañ ko grâce à ñun ñu andi ko suñuy koñ. mooy loolu noonu bañ na ko ba amul euh, benn boo xamante ni jeune la boo yaa ngi ko ëppalee suñu koñ ñu ci am. ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen. te yëpp bokk na yow da nga cee participer. dañ cee participer bu baax a baax. ci recensement bi. ci mmh. dem seeti délégué de quartier yi ci dem sensibiliser ménage yi nga xamante seen loxo jotul seen moyen ci dem sax ñi nga xamante peut-être yàlla may na leen ñu am lu ñu suturoo mmh. na leen lii kat yéen taxu leen ko jóg kon bàyyi leen ko ñu ko tax a jóg loolu lépp mi ngi am ci li nga xamante moom mooy euh, partenariat politique wala juste ay démarches yoo xamante ne yooyu yooyu partenariat politique en plus démarche la mmh. moom day nekk partenariat politique il faut mhm. ay nit ñoo ci mën a def di ko doxal. Mhm. parce que machine moom lu mu mhm. nekk di xam nu mu koy defaree quoi. mais mais mais parlant de votre dynamique euh, donc euh, ñu gis ne yow koo xamante ni euh, gis nañ ne da nga da nga nekkoon ku yëngu lool ci politique ci côté fi nga xamante ni moom mooy parti au pouvoir muy muy APR nekk Yeumbeul Sud mais ñu jékki-jékki gis saa waay ki nga xamante ni mooy Pape Malick Ndiaye nekk mën nañu wax l'ennemi numéro un ci ki nga xamante ni moom mooy moom mooy ki fi nekk muy Amadou Hott donc qu'est-ce ba nga jékki-jékki benn changement bu am ci diggante ki nga xamante ni moom mooy euh, Malick Ndiaye ak ñi nga xamante ni ñoo ñoo fi nekk. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qui a été le le euh, le facteur li nga ko waxee ex li muy explosé loolu li nga xamante ni moom mooy sa diggante ak ñoo ñi nga xamante ni ñoo fi nekk. merci je te remercie gis naa ñun fii wax benn wax mais dañ koo desee gëm. dañ naan wax nag wékk na doomu waaye gëm mm-hmm. ma je n'ai rien contre ci wàllu personnel yi awuma moom benn problème mhm. yàlla xam na ko musuma def dara musuma tooñ musuma kaa tooñ mhm. ci li ma jàpp mhm. mais dafa am loo xam ni tey jii ba muy nekk bad wala nekk États-Unis kenn musu koo wax defal lii wala defal lii parce que jamono yooyu day liggéey lu mu am mu ci def ci ay jox ko famille wala mu def ci dimbali ci ko mais pour l'instant dañ ko dénk suñu alalu réew jox ministère de l'économie jox ko plan mooy planifier jox ko ñi seetaan Game of Thrones dinañ ma xam dinañ xam li may wax. Mhm. comme le little finger. kon mhm. léegi boo ñëwee loolu nga nekk ci gox man pour man dafa am gox bi loo leen a delloo buñ la joxee loolu nga juddoo ci gox yaroo fa d' autant plus que avant nga yem xosu boobu waa gox boobu ñoo liggéeyal parti liggéeyal parti ba président ne leen bu ngeen amee un homme boo xam ne am na benn niveau bi. Mhm. dinaa ko fal benn poste pour mu mën leen jàppale jaaralee ko ci yi nii. war a ndox mi bu taw yi jotee mu évacuer war a former jeunes yi mhm. maison de maison de centre formation au métier ko ñaanoon boobu ça un an et quelque ba tey waxuñu si ban suivi ah mais centre bi ñu créé nag centre si di ot nag centre si di ot mooy loolu pour moom la loolu permanence la loolu c'est pas un centre parce que quelques jeunes même pas 15 jeunes lañ ci formé au boulangerie pâtisserie après ñu formé leen ba pare bàyyi leen. ba ñu ko ba léegi 15 jeunes lañ ci formé. matul 15 jeunes laa la te ba ñu formé ba tey ci benn domaine. mais ils ont dit ils ont dit 100 jeunes ont été formés en boulangerie xam nga nag foofu nag laay waxee maanaam nañu bàyyi politique politicienne yi moom c'est un homme d'état dafa war a weesu defar ay affaire photo di di publier. maam yooyu noonu c'est pas la leen jël benn 15 jours ak jàngal leen nu ñuy defar beñe rek après ñu évacuer di ko def noonu di ko def noonu pour ay chiffres di ko wax lay chiffres mais ñooñu noonu mu formé xam naa ci ñu bëri ñoo xamante ni kenn si ñoom amul fenn foo ci xëyaat te kenn si ñoom amul qualification pour dugg fenn pour secteur de l'emploi kon ana njëriñu formation boobu noonu te ot ci boppam ana ay moroom ministre yi ñuy def ci ci yeneen gox yi dañoo ñëw da nga ñoom taxaw ñu ne man sama gox wutal naa fa trois cent jeunes liggéey. Mhm. loolu moom waaw fexe naa ba ñu jàng amoon di wut liggéey ma fexe insérer fi ay nit. Mhm. fexe naa ñoo xamante ni problème de ma defal leen fexe ne mhm. ñi xam si secteur artisanat mécanicien euh, ni ñu ko waxee mécanicien électromécanique. tailleur ay mais ñooñu ñëpp dañoo soxla seen seen jàppale. bañ na ko instant ñu doon jàng mécanique à l'ancienne pour ñu réparer oto léegi c'est tout un problème. mais loolu yëpp transforme ñu ñu dem transformé wu dem foofu noonu loolu ñen ñoo ci jàpp. Hmm. moom mais au lieu de ça ñu dajale lu mat ay deux cent wala ay boo xale jigéen dajale leen foofu ci ay groupe daf leen all girls ñoo ko di traîner rek ñu jàpp si booy dóor rek loolu moom mooy. ah non non ça ce sont boo nee dajale booy dóor leen. man seen biir laa xam naa ne kaw. ci leen jiite foofu dañuy appooy. ah mais mais mais mais fi jël. nee na kër aux parents. Hmm. gis nga booy yooyu noonu ñu fay dajale. amul benn booy bu ñu fa jàngal B wala benn booy boo xamante ah mais mais ah mais jël nañ jàngal nañ foo xama boulangerie jàngal nañ foo xama la technique de de la defar beñee xama ak leen ak yéen ak yéen mais tout ça yoo xamante benn angle booy bu teg jaay beñee ñu financé ah. Moussa gis booy bi teg ci engrais di jaay bañ ah mais gis naa dañuy sol ay ñu sol ay tenue di way di way haute gueule sa brioche wala keneen ak keneen fu booy benn booy bu ñu jël mhm. ce sont des coups politiques te moom loolu daf ko war a dépasser mhm. ñun ñi nga xam ne sax amuñu moyen amuñu yenn tuuri ci politique sax dafuñu loolu mhm. dajale jeune 15 jours nga jël ñeneen andiwaat yeneen jeune nga 15 jours nga andiwaat <laughs> dajale lu mat 100 jeune nga ne léegi mais mais mais c'est quoi le véritable problème entre Malick Ndiaye ak Hott ak euh, Amadou Hott c'est cela veut dire sa sa démarche wala boog soo son entourage qui dérange Malick Ndiaye wala boog Malick li li di wax naan Malick dafa dafa ñëw li mu bëggoon amu ko mu mu jël ci xale yi munul jël ci xaalis bi affaire yooyu il s'est senti frustré mu mu pour pour pour dóor quoi. ñaar laa mën a wax mooy suñu problème. mooy problème ak nit ñi en général su ku nekkee ci dëkk boo xam ne c'est pays sous-développé. Mhm. un parce que ñu fa nekk politique politicienne la ñu def. parce que jege woo entourage moo tax. xam naa leen bu baax. Ah. ay genre yu mel ni Balla Seck ñu ko dóoroon. élection non non non non faut pas citer de nom faut pas citer. dama damay wax. ñu ah. ci ay ñu ko dóoroon ay millions ci élection locale. mu mu da leen ba pare andiwaat na leen ak ñeneen ak ñeneen ay ñoo xamante ñu mel ni ay ñoom ay Cheikh Tidiane Gadio maa ngi profité ci ko mes condoléances. doom dafa génn àdduna. waaw mm, mais ah, mais ah, mais mais ce sont yoo xamante ne dañoo am compétence bañ jël leen. dafa. ah mais mais certes Yann Gadio il travaille au niveau de de l'agence du développement local. dañ ko faa def PCA. Uh-huh. te avant ñu ko def président formation mu defaat formation président jàppale ko jox ko PCA moom moo nekkoon blocage yëmbal sud. ba pare président ba ñu gañe waatee moo nañu bu ngeen amee kàngaam yëmbal sud ma def ko di DG port wala ministre mhm. sëriñ dem loxo ji Amadou na ko ñëwal mu ñëw fii nii maam lu ñu liggéey ñu fayee ko ko après pour moom mu mën a jàppale ndaw ñi mais ba mu ñëwee watee kan la jàppale a ah, waa ay bokkam waa orgals ah, waaw léegi nag loolu loolu jël alalu réew mi di ko jëndee ay pombiteer ak ay soble ak ay affaire yooyu noonu di ko neexalee nit ñi. ah mais mais est-ce que est-ce que nekkul ne loolu la waa yëmbal soxla yëmbal ay soble lañ soxla pombiteer lañ soxla yëmbal 25000 lañ soxla parce que ñoom. foofu di ko sanctionné chaque jour kon. yëmbal chaque jour dañ koy sanctionné. donc saa yoo génnee li koy topp. mais est-ce que c'est autre qui a été sanctionné mais mais c'est le président Macky Sall qui a été sanctionné. non pourtant pourtant bii ñu passé bañ jiitalee Modou Mbène. Mhm. bien vrai que gars yi perte nañ mais affaire bi des na des naa metti mm. donte nag je suis pas pour Modou je suis pas pour Ott ndax Modou Mbène ci waa koñam nee nañu mm-hmm. yor na des entreprises ay c'est un milliardaire mm-hmm. mais ba tey waa koñam mënuñoo limal ne la ñaata jeunes ñoo fay xëy mm-hmm. maanaam politique politicienne yi nekkoon yooyu ma la ñu dépassé man Modou Mbène c'est un frère c'est un frère mais boo nekkee ci gox yor ay entreprise mënoo ne ñaata gox ñaata jeune ñooy xëy samay entreprise mhm. man loolu pour man échec la mais mais parlant parlant de de mouvement de ton du ma la jóg Souleymane Faye lan loolu du boo tekkee da ngay fexe sa famille tekki mhm. soo sa tekkee ba sa famille tekki nga mhm. dëkk ci gox léegi yow sa tekki nekkatul sa famille say ah, doom ah, moom fexe nañ léegi gox bi koy topp tekki ñoom ñoo koy topp à ay nawetaan rek nawetaan ban impact la am ci dëkk nawetaan neex na ñun ñëpp dañ ciy. nekk naa ci. Eh, moo tax ma wax li ci ne. Uh-huh. parce que mouvement bi yëngu naa ci. may ASC nawetaan 200000 ñu dëkk ci ASC bi ban impact la mën a am seen ay ñun neex na trop c'est bien. Mhm. mais ban impact la am il faut ñu wax ci ci rentabilité. waaw léegi yow sa mouvement bi taxaw nga léegi fan ngeen toll jamono ji ndax euh, la ministre a cherché à recevoir pour pour connaître les véritables li nga li nga soxla pour pour ñu jàppale la ko wala boog ban problème nga soxla pour au moins ñu ñu jàppale loolu tamit. parce que nee na nee na jëm na jëm euh, yaa son secrétaire xaw ma lan son chef de cabinet bëgg na recevoir nga ne yow moom direct ngay waxal ndax ndax mujj naa ndax mujj ngaa wax ak moom. ñun ñoo ci déggoo ñoo ko wax c'est pas ma personne seulement chef contacté nañu deux à trois fois pour xool peut nu muy defee stratégie wala nu muy seggee nu muy xoolee ak yooyu lii nekkul lu ñuy segg wala lu ñuy calculer wala lu ñuy teg ceeb ñun ndeyu mbili gi la ñuy ñun ñëpp wax ak moom directement ne ko lii mooy suñu soxla. soxla mhm. soxlawuñ sa dërëm soxlawuñ sa ñaar dërëm. ndax loolu antu na. après nag chef de cabinet moo ne bu ñu jaarul ci moom duñ ci egg ñu ne ko nag léegi baax loolu moom sa responsabilité la mm-hmm. ñun la moo ne suñu responsabilité mooy dinañ ko dénoncer fépp foo xamante ni nit dinañ fa mën a dégg kon kon kon léegi kon mu leen fexe ba gis ki nga xamante ne mooy Amadou Hott ngir mën waxtaan moom ba tey nii gisante wuñu mm-hmm. avant gisante woon nañu ba jox suñu ay cahier de doléance mais pour l'instant ba tey gisanti wuñu mais ba tey tamit ñu ngi continuer def suñu recensement mhm. ndax fii ni yëmbal boo seetee Saint-Antoine yi on a pas moins de plus de cent jeunes yoo xamante ni nii mhm. am nañ seen i profil complet mhm. ku ne ci li ngay aspirer soit da ngay jàng ba niveau nga toll ba da ngay da nekk ci métier métier bi nga toll ñaata at nga ci def lan nga ci bëgg ak say aspiration ñi nga xam ne financement lañ bëgg ku si nekk li nga bëgg def nañ travail de recensement boobu yëpp maanaam ñun sax boo seetee dañ nous sommes des facilitateurs dañ ko yombalal ay liggéeyam dañ ko bëgg boo bëggee liggéey wala boo bëggee jàppale yëmbal fii moom ngay jaar mu baax. mais ah, d'après tout ça yooyu yëpp def ngeen ko xam bu defee benn genre euh, naka mën a waxee sax benn genre euh, euh, dajaleel ñëpp xool le diplômés qui sont à yëmbal yan diplôme lañu am yan ak mais boobu léegi bu ñu fexe ba régler problème emploi bu yëmbal bu ñu fexe d'après ki nga xamante ne mooy euh, Amadou Hott ak li mu am yëpp bu ñu fexe ba yëmbal sud bénéficier si boobu donc c'est quoi le véritable problème le problème c'est Amadou Hott wala boog le problème c'est c'est le président wala boog le problème c'est qui véritablement le problème général wala central c'est le président de la parce que moom la ñu dañ loolu moom lay incombé moom ci boppam dañu faloon pour loolu mais ñun comme dañoo ne dañuy def dañuy bay ku nekk dañuy bay sa wéyu tànk dañuy commencé yëmbal avancé mm-hmm, mm-hmm. yëmbal sud au yëmbal sud a mm-hmm. a dox a Bara balaa pardonnement dem ci président instant yu toll nii lu Bara Gaye war a def dañ koy wax ne ko Bara lii yaa ko war a def loolu duñ si négocier Amadou Hott lu mu war a def dañ koy wax lii yaa ko war a def ndax pression ndax nga teg carte nit ñi. mais ndax pression bi nga teg am root ndax ndax ndax di ko teg Bara Gaye. bien sûr bien sûr parce que Bara Gaye am na li nga xam ne war nañ ko ko teg parce que dafa gaa yëmbal dañ koo defaral lu raar dañ ko jox ñaari yoon seen voix à à ci intervalle mhm. kooku bu goree dafa war a liggéey ba dee. Mhm. léegi nag instant toll ni affaire bi nekkul benn autorité moo ko tax a mhm. parce que gaa amul root dafa war a am lu mu war def mais Bara Gaye lu mu deful suñ si noppee kon ñun loolu dara. ku ci nekk li nga war a def ci gox bi da nga ko ci def. léegi ñu euh, waxaan rek ci li nga xamante ni moom mooy peut-être euh, ce mouvement au dégage boobu fan la fan la fan la tool jamono ji ak euh, li nga xamante ni moom mooy mbirum coow ay see ay see penc ak wàllu subvention yi ñu wax ne Malick Ndiaye bu am na am na lu mu kii ci biir bokk na si ñi nga xamante ne ñu jël xaalis bi détourné ko du genre am na daal coow lu am ci affaire subvention yi mais d'abord fan nga tool ci au dégage bi ndax mouvement mi ngi dox ba léegi ndax am nga ay ay membres yoo xamante ni si biir yoo xamante ni ñu ngi lay accompagner ak tamit ay yoo xamante ni dégg na sax na ay ténor yu mag yoo xamante ne ñu ngi lay mboot ci suuf ngir ñëw xool naka la ñuy def ba caxabal ki nga xamante ne mooy Amadou Hott. parce ah, affaire moom ñu ngi sant yàlla bu baax quoi ndax peut-être euh, bañ koy def sax séntu wuñu si woon. kawe na sa njort quoi mu amee nii ampleur wala réussite bu toll nii. Mm-hmm. mais li ñuy wax rek yàlla xol lay fay. ñu tax di liggéey. Mm-hmm. du suñu jëmm. ndax ndax ndax yow. t'as choisi le bon moment wala boog dafa ànd ak benn benn buum buum politique nii rek rek nga profité aussi. waaw ah, le moment moom ça a été délibérément quoi. ñu ñëw choisir le moment bi nga xamante ni. nga ànd ba yëmbal jax quoi. impacté ñu ñëw defaale ko ci pour mu affaire boobu amaale effet de boomerang quoi. Hmm. mais. gis mais bu defee boomerang mbaa du mbaa du la mujjee escanté après. non ñun hmm. sax boo ragalee peut être ko du yomb de. Hmm. wala boo ko sax doo ko téye keneen nangu ko. kon yow ragaloo politique bi li si kii quoi. ah bëri na ay sifa yu si nekk de. maanaam ñi ma xam sax xam nañu ma ragal. Hmm. ragalu ma ko waaw. dëgg yàlla maanaam ragal yab la tamit. waaw beneen sant yoon wala ne waaw maa ngi ragal nga tous les retombées de la politique. kaso beeg labale yeeg ñi nekk ci politique loolu nag moo tax ma ne la si dara. Hmm. ba pare ñun li ñuy wax c'est mesuré quoi amul lenn loo xamante ni. c'est c'est dépassé ok ça c'est vrai aussi. parce que mhm. on a des conseils juridiques. Mhm. ci mouvement bi am na si ñoo mhm. xamante ni donc c'est mouvement qui est bien structuré. c'est mais am na kayit wala. non ci kayit nag génnagul. mais déposé ngeen des kayit. ñu ngi def ay démarches si wàll beneen côté bi li nga doon wax. loolu c'est un malentendu. pas un problème sax de subvention. penc la ay bay la ay bonne volonté doon may xaalis. bëgguma citer ay tur non non bu ñu demee ba yow wax xaalis moom pour tourner diw jox nañu xaalis mais bul wax ñaata lañu jox. mais man maanaam joxuñu ma ko. Ah. parce que man je fais pas partie du bureau je ah. mm-hmm. joxe na. non je sais pas. Modou Mbène joxe na. je sais pas taxawal ma ma ma faral expliquer. <laughs> léegi bañ leen joxee mm-hmm. xaalis. Uh-huh. ñu après bañ jël coupe bi ba pare. Uh-huh. ñuy def. rondé remerciement. Mm-hmm. ba ñuy remercier ñu ñëw ba sama biir kër. fekk ba sama biir néeg. président bi ci a ñoo taxaw mu ne mouvement Hott Dégage yow la seet si dañu laa sas mm-hmm. wax mm-hmm. fekk na ma ne sama benn gars yi filmer loolu noonu mm-hmm. parce que tamit bëgg naa loolu waaw lu leer waaw c'est vrai la fin la jox la defal segu cinquante ci ASC bi du sax sama tur ci turu mouvement bi ma jël loolu posté ko statut après ay nit woo ko di ko ci interpellé di ko laaj mu leen man mi j'ai interpellé sur man dama copier ak coller ay waxam man joxee moo fi cent francs après bi wax ci ay wax yu ñaaw te instant wax dëgg yàlla am na lu bëri lu may seet parce que maanaam bëgguma di dugal ñun ci sëw ay tontante ay yenn. waaw non non wuy ma wuy ma boo xasee boo xasee ba toog mbirum xaalis boobu fan la toll xaalis boobu lu tax ñu ñëw ne Malick Ndiaye moom moo ne joxe na temps ci xaalis je pense que jabu ñu boo xamante ne ne xaalis. dañoo dañoo inventé moom laa lay wax nii man ma ba sama kër ne ma dañuy def démenti ci Malick Ndiaye xaalis bi ñu joxe. donc ça veut dire yow yow ko toog yow mi nan la xaalis boobu demee. ñëw leen ngeen seet ma ak coupe mhm. bañ ñëwee seet ma bañ ñëwee seet ma dañ laa sax cinquante mille ma ne leen dinaa leen ko jox d'ici la fin de semaine. en tant la personne de Mbaye wala boog en tant que mhm. Mbaye mouvement Hott Dégage. mouvement bi. Mhm. dañu seet ma ne leen mouvement bi dinaa leen jàpp. mouvement Hott Dégage lañ seet waaw ok na na na mouvement Hott Dégage lañ seet ok mille avant la fin de semaine. le soir. le génn ñu ne man joxewuma dara est te on était le lundi ou mardi su ma juumul. jour tam xarit la wala lendemain. Ah, ah. nga génn le soir nga génn nga ne man joxewu ma sa cent man ak yow loolu la waxante woon. Mhm. te man fekk na ko nit. Mhm. ba muy ñëwaat pour ne ma dama lay ñaan lii mun naa am ku ñu bëgg a mun naa am ku ñu bëgg jàppale mooy loolu noonu. Mhm. ba muy ñëwaat di ñaan dama dindi loolu noonu. ànduwaat naa ay nit. di ma koy ay série vidéo mi ngi nii sama téléphone. nit dañoo taxaw ni ñu filmé ñu. mu ne ñu haute dégage yow la ñu ci cinquante mille la nga sas. Mhm. ma ne ko cinquante mille dinaa la ko jox avant fin de semaine. dugal vidéo bi estati kon il n'a pas le droit mu donc cela dit ñoom ñoom ñu ñëw ba ñëw jël seet si seet si mouvement haute dégage donc il adhère donc à ton mouvement donc. ah non si parce nangu nañ parce que tamit ñoom bu ñu tax bu dee ay nit lañ seen bopp ay dara newu ci war nañoo xam ni maam sa doomu gox. Mhm. man tey jii lu ma néew néew néew néew man ñu njëriñ bu mu leen amal ot mhm. bu ot jeexee ah. bu jeexee nii. est mhm. que bu ñu demee mais waa wàllu affaire subvention yi nag nu mu fa demee aussi. affaire subvention yi moom loolu beneen à loolu moom mairie bu ne mooy subventionné ASC yi chaque année. Mhm. Ah, mais am leen mm, mm, mm, ñu tudd sa affaire subvention yi. moom ñooñu loolu dañoo tudd dañuy wax loolu à mais loolu moom sama yoon newu si. bokkuma ci kuréel pour l'instant bokkaanuma ci ñoom jël nañ seen mais ab dama ci ndax yow da bàyyi loolu mu seet noonu parce que tudd nañu ne nañ xaas bi léeg-léeg lii euh, ba sax néew nañ dañ lay porter plainte plainte boobu fa la toll jox nañ la ko wala boobu dañ doon dañuy wax rek dañuy wax rek duñu dama ne la ah kon ñoom dina ñëw di ñaan ci njëkk. dama ne la tontu bi nii nii. Uh-huh. lu tax mu sedd nii nii nii dafa am ñu ci ñu ñaan njëkk. non bu bu bu seddal leen tàng ko moom tàng. lu tax mu yomb nii. Uh-huh. dafa am ñu ñaan njëkk moo tax ñu bàyyi loolu. kan moo ñaan njëkk ñoo ci bàyyi loolu non kan ko. comme comme kan. te en plus penc dañoo kontaan ñu ñëpp dañoo nekk ci bànneex. dañu uh-huh. jël coup moo tax yu bëri bëgguñu ko di mais li ñu def bu doon keneen moo ko def dinañ dégg lu gën a garaaw loolu parce que man du ma nangu kenn di comme yow plainte bu yem sax man maa leen war a plainte. Hmm? parce que ñoom ils ah, man dañoo ñëw ba ci man yeesi ma ne ma dañoo bëgg a def démenti parce que Malick Ndiaye nee na daf ñooy dañoo jox temps ci xaalis donc temps ci xaalis boobu yow. dafa war leer ndax xaalis boobu. bañ na ko léegi ma na ko mosuma ne ma sas naa la temps ci xaalis. Hmm? ma ne leen loolu ngeen ma sas. Hmm? dinaa leen ko jox. d'ici la fin de semaine. mu da war a des jox nga leen ko léegi. nu mu leen koy joxee ak li ñu ma ah mais di nga bor la di nga bor la. mais dañu fa seen ñëwaat demal ak xaalis. ah mais nga jox leen rek. sa sa sa dugg sama gàlle. joxoo ko sa sa sa xaw ma secrétaire sa ASC nga koy jox. te ñu dugg sama gàlle. wa waa léegi kon jamono ji yow sa politique fa la toll jamono ji ndax ndax maa ngi fi mu nekk nii biir biir APR mun nañu wax ne am na ñoo ma ne jubóo fa ak ñoom koñam tamit mën nañu wax ne moom mooy loolu parce que affaire ASC yu ni mel donc ndax Malick Ndiaye carrière politique jamono ji amul lu mu entaché tuuti euh, donte sax gars yi dégg la def nga bës biir yëmbal sud gars yi fu sa carrière politique loolu bu ne ak ku ne di la jéem a fax sale nu ne hmm. parce que nit ñi nit ay ambition yu noble hmm. ça se comprend am ñoom ne ay du mhm. toog ci centre ba ay quelques moccaar yooyu loolu moo leen jaral ñi génn ci Facebook bi naan may di bàyyi rek moom du ma leen sax tontu comme kan damay non ma man man dama la jox jox ay tur ku si mel ne mag Maguette xaw Maguette Ngom taxaw na nee nee na Malick Ndiaye lépp lu mu wax c'est pas vrai il est prêt à euh, débattre avec toi publiquement Maguette Ngom fan la wax loolu ah wax na ko daal ak ñeen ak ñeen ñoo xamante ne nee nañ Malick Ndiaye tout ce qu'il dit c'est c'est ay wax la rek. képp ku wax loolu. neel ma ko Malick Ndiaye nee ak képp koo xamante ne yaa ngi koy wax lesbot la. Hmm. yi. <laughs> maanaam ñoo xamante ne dañoo amuñu peut ay compétence yaakaar ci ot li mu leen di may moo tax mënuñu ko waajal. Hmm. toujours may fexe seen mu jéem leen a jàppale ñoom liggéey bu dëgër. Hmm. man lu ñu ma wax wax lu bon léegi na leen yàlla dabal ñoom ñoom liggéey bu dëgër soo waaye bu liggéey ñu bañ nekk di sonn. parce que jege nañ ko nga jege ministre ay at. bu dafa amoo ci benn benn avantage wala dafalu la dara. Mhm. gàcce la. Mhm. dañu bañ a concentré wu ci li may wax ñu concentré wu ñoom seen bopp. Mhm. man sama bopp kese taxumaa jóg su dee si cadre pénc fi ngi si laa gox. ñu ngi lay ñu ngi lay ubbil buntu yi ba léegi. comme supporter comme ba comme ku fi dëkk. maa ngi fi noonu ba pare di supporter sama ASC ba pare su ma ci am sama dërëm sama ñaar dërëm di ko si def di dem stade léegi benn malentendu la woon muy président bi ak quelques gars. ah yi wax na fi plainte wax nañ fi leneen ak leneen donc ndax yooyu féete na boo wala yooyu féete ko fa yooyu fa fa nga leeral ko. Euh, ñooñu am temps ñaata temps ñu am pour plainte dañoo na yaa leen yaa yaa leen diffamé yaa leen léeg lii yaa leen jël nañ léeg léeg lii donc c'est-à-dire kon ñoom. bon ma kuulee bañ leen bañ wax dara dañoo war a noppi. Mhm. ndax ñoom coupe bi moo leen sauvé kenn laaju leen bilan mhm. déggoo ma ne mu sedd rek hmm. ñun ñu leen newoon bilan leen problème day am moo tax ñu bàyyi mu sedd ñëpp kontaan nañ hmm. ñun suñu leen porté wul plainte kenn hmm. waaw voilà donc ñuy fàttali rek ne ñu ngi doon euh, dalal ki nga xamante mooy euh, euh, Pape Malick Ndiaye jiite li nga xamante ni moom mooy mouvement Yeumbeul Sud va de mal en pis ji war nañ ko mën a wax fan la Malick jëm ci ci jëm parce que Malick Ndiaye on dégage Malick Ndiaye euh, coowal penc Malick Ndiaye yee na yee Malick Ndiaye la fan la jëm jamono jii ci parce que am am na yenn échéance ñu jëm euh, mun nañu wax ne euh, biir APR bon am nga fa am nga fa tuuti gite nga fa am donc Malick ndax day rallier. beneen parti parce que xaw naa dégg tur écho ñu ne Malick Ndiaye waa waa waa waa Pastef sax dañ koy xaw a ngemb suuf ngir mu xaw a yàqal amuru oto ak yooyu mel ndax Malick Ndiaye loolu ñuy wax day fekk ji APR day fekk ji waa waa Pastef ngir mën a liggéey politiquement wala boog Malick Ndiaye day dem avec avec mouvement euh, pour pour pour euh, se positionner politiquement ay Yeumbeul Sud parce que am nga tur bi daal jamono ji mais xamuñu ndax bagage nécessaire bi yoo tax imposé wu ndax am nga ko. ñu bañoon kenn ku si nekk sa analyse la mm-hmm. wax bi ngay wax sax mm-hmm. ñu si dégg ngi dégg mm-hmm. lu gën a taasal yaa ngi biir bennoo ba léegi wala wala maa ngi ci biir ba tey benn tànk baa ngi ci biir benn benn tànk baa ngi ci biti maa ngi ci biir ba tey mais instant bi mu yi nii dama concentré wu ci mouvement parce que mouvement moo ëpp njëriñ ci man moo ëpp njëriñ ci ñi ma ci nekkal. Mhm. moo ëpp njëriñ ci waa yëmbal. Mhm. parce que mouvement bi boo seetloo maanaam soixante dix pour cent ñi nga xam ne dañ leen a approché lu ñu lay wax ñu ne lii nii dafa weesu cadre fii laa bokk wala fële laa bokk. Mhm. ku si nekk dañ ci gis sa njariñ. te instant bii toll man pour man politique bi foofu lañ toll. mooy soit ci politique buy activité mouvement wala muy activité citoyenne. dañ def lépp loo xamante ni ba xam. kan moo ci bénéficié mooy nit ki. Hmm. sur man instant toll li ma gën a yitte employabilité des jeunes la formation des jeunes. Hmm. employabilité mais tu tu maa ngi liggéey. maa ngi sant yàlla. Hmm. maa ngi liggéey ku nekk nag yaa ngi ñaan avancement. maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla su ma gisee leneen lu mu mais mais est-ce que le problème de de Yeumbeul en termes d'emploi ndax neex na régler parce que euh, problème de la formation y a problème de la d'affaire spécialisation ak yeneen ak yeneen ak li nga xamante ne moom mooy euh, dëkk bi ni mu ni mu jamono ji ndax euh, buñ nee rek yow buñ nee yow yow da nga taxaw bu ngir xeex wàllu employabilité alors que yow leer na la fii pour nga régler problème employabilité bi du yomb euh, ndax ndax nekkul juste rek c'est juste c'est poudre aux yeux ngay ngay ngay ngay def gars yi nii rek. dañoo maanaam par exemple rek dama lay recruter. Mhm. yëmbal fii nii nañ ci quota bu bañ ko fi andee. grâce à qui. bañ andee quota bi. Mhm. lu ko xoolal ko politiquer ay mbokkam. ministre bi ay mbokkam la jox loolu. mais mais mais c'est venu grâce au ministre. dañ koo jox dañ ko fay joxe oto tôt ou tard lu mu mel. Ah, day ñëw ci gox bi day ñëw mhm. mais ba mu ñëwee da koo politiquer. par exemple foofu rek mën nañu faa dugal ñoo xamante ne jaru qualification mhm. ñaata entreprise ñoo nekk fii de la place yoo xam ne dañu soxla technicien de surface mhm. foofu soxlawul diplôme mhm. sport mi ngi ne le c'est un bouée boo na jël ñaata nit mi ngi fi. donc cela veut kon li ngay wax ni kon. forêt forêt mbaaw bi fi. donc yéen ak ministre moom ministère am ci boppam. Oh, bien comprendre li nga donc tout ce qui vient au niveau de Yeumbeul Sud ça a été par Amadou moo ko ak entourage am bu pàccoo. Mm. nit ñi signalé nañu nañu cinq minutes mooy njëse ci ci émission bi xanaa juste rek euh, ñu def benn briefing fan nga fan nga jëm jamono ji politiquement ndax mun nañu wax ne bu la benn parti approché ndax danga koy fekk ji parce que am na ñeen ñuy ruumanaat naan euh, yow ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa waa Pastef ñu ngi lay approché am na yenn parti yu moo tax ngay sànni xeer ñi nga xamante ñoom ñooy waa waa waa parti au pouvoir.

tu vas continuer dans cette logique de travail avec le parti au pouvoir wala bu la waa PASTEF wala benn partie euh, opposition ñoo approché Malick Ndiaye va aller liggéey ak ñooñu. Hmm. mais mais pare goo pour liggéey ak waa opposition waaw man man lu leer nañ la laa bëgg parce que nee nañ Malick jaay daa am ñu ko approché si pour ci opposition ngir mu liggéey ak ñoom moo tax sax mu fexe ba yàqal ki nga xamante ne mooy waa waa waa APR fii. loolu pour mais mais mais est ce que am na crédibilité bi yëmbal ba léegi d' coow yi am lépp. ñooy taxaw ne yëmbal ñoom ñoo fi nekk dañuy def yëmbal bees. Hmm. ak man. kon borom yëmbal bees kon fu mu nekk nii. Euh, yëmbal bu xuur. ah yëmbal daa gën a la moo fi ah. Ah, ñëw na il ministre de l'économie andi na ay joxe na ay ay ay saako soble ay pomme de terre. moom ak defetu ah, une première en politique ci ci histoire kii. Hmm. donc boo amee leen loo xamante ni peut-être que moom nga bëgg a tëjee ak euh, ñi nga xamante ne ñooy si taan jamono ji. mooy lenn soo mënul nga bàyyi mi ngi liggéey. soo mënul fekkee mënoo amal njëriñ yëmbal. bàyyil nga dellu fi nga nekkoon. Mm-hmm. nga bàyyi koo xamante ni liggéey pour waa yëmbal. Mm-hmm. lii c'est une ot bi ñuy wax loolu honte la mujjee doon. kon kon Amadou Honte kon boog. Amadou Honte la. <laughs> voilà kon moom moo ko waxal moom Amadou Honte donc euh, ñu doon dalal ki nga xamante ni moom mooy Pape Malick Ndiaye nekk euh, le euh, coordonnateur du mouvement yëmbal de Val de Mel Empire Amadou Hott Dogage nekk aussi ancien secrétaire général bu AIC Penc yi ñu nekk jamono ji sax fi nga xamante ni moom mooy xolu xolu penc yi ñu doon waxtaanee ponk yu bare bare bare bare li nga xamante ni moom mooy wàllu carrière politique am li nga xamante ni am na fii ci wàllu mouvement Hott Dogage

télévision euh, ci euh, réew mi ak fi nga xamante ne moom mooy Tawfekh Production di jaajëfal ñëpp leen jox di dajee la semaine prochaine jërë ngeen jëf.